إنني هزت بالإهلاء المعين من جميع الأذى وكل العين إنني هزت بالإهلاء المعين من جميع الأذى أداوى كل لهين سارف الهمة لربي تعالى راجيا ساق يهو بهما إمعين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 تجنقي يا ذا الحرون من به راب مروداسا بن حنيد قادوا تائعا له أمروني وهو فخري وعروتي وجليسي بأهادي سد المزايا المكين أحمد الحامدنا أحمد غوزي ولربي بدعوات الكركوني يا إلهي عليه صل وسلم مع للواه لليقين من صحاب ثبت له لوكيل قد هداهم بنور حق اليقين بسم الله الرحمن الرحيم دق دق دال دق نالول تاي جيني تي جلبينك dikk gi nga xam ne dikk naa ko fii ngir ziara si barab bu tedd bi mu nekk nag ziar boo xam ne bu fees dell la ak ay njariñ ak ay yóbbal ehm, wax dëgg yàlla gisee naa fi lu bari jàngatee naa fi itam lu bari bari jaww ji nga xamante daal gis naa ne jaww la joo xam ne ju dal la ju neex jaamu yàlla ñuy wane ne ay bokk jullit ñoo fi nekk ñu euh, lislaam ñor lool mbooloo moo xam ne euh, seen taxawaay ci diine ak niñ koy jëfe alhamdulilah ak cant yàlla rek lañ ci seetlu mooy taxawaay bu am solo loolu itam nag ñun dikk gi ñu fi dikk du leen lu ko waral lu dul te gën a jëmmal. Euh, Eh, jëflante bu rafet bi nga xam ne moo war dox diggante jëflante jullit ak mbokkam ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñu sori sori eh, jëflante boobu moo fi indi eh, waaye biñ ko doxee nag li ma seetlu dëgg dëgg daal mooy loolu lislaam santaana ci dox ak jokkale diggante jullit ñi ak fexe ba jëflante jëflante bu rafet rek loolu lépp boo ko defee rek da nga ciy gis njariñ gis naa bu baax njariñ Eh, li nga xam ne moom laa gis fii nag eh, wax dëgg yàlla day eh, gën a firndeel na rek juróom ñi fuñ mën a nekk ay bokk lañ waaye buñ bokkee nekk benn rek benn la seen bopp lépp luñ jëm danañ ko man gis naa ne daal fii wax dëgg yàlla ay euh, jullit yoo xamante ne ñu diine ñor lañ ñor lañ euh, wax dëgg yàlla nekk na ci benn ci barab yi lislaam yi nga xamante ne lislaam la ko war di ndamoo waxtu nekk ci sàmm gunu sàmm ak itam xam guñu xam li lislaam santaane ak di gëstu xam-xam wax dëgg yàlla war nañoo fexe ba euh, ñi nekk ci wàllu àdduna bi ci wàllu nekk ay jullit ñëpp ñu xam ko xam li ne ci biir fii bañ a gis rek eh, lii na ci kaw waaye ñëw ba ci biir ñu xam li ne ci biir mbir mi am na solo lool ndax eh, barab bu sel bi di jumaa ju màgg ji li mu rafet rafet ci kaw itam am na ay secret ci biiram yoo xam ne ñëw ba fii gisal ko sa bopp am na solo lool ñu ngi am mbégte bu baax a baax di gën a sant eh, sëriñ bi nga xam ne moo taxawal yoon wi muy sëñ Tuuba waaye itam ak mbooleem nga xamante ne ñooy ñi ko wuutu gannaawam te wuutu ko wuutu bu rafet eh, wax dëgg yàlla yal na yàlla barkeel leen barkeel itam mboolem àdduna bi ay ci jullit ñi ak fu nekk loolu day wane ne ay nit ñu ñoo fi nekk ñu eh, ki nga xam ne moo ko fi nekkal muy xalif général des mourides di ko ñaanal suñu borom mu dolli ko barke te barkeel leen yéen itam ci liggéey bu rafet ak taxawaay solo bi nga xam ne koy def jërë ngeen jëf salaamaaleykum. yaa ilaahi yaa man alayhi ittikaali fukka kabli bi rawdi ahli safini عجل الفات هوى التاجوت بفيوض مخجلات سكبا فيك بالدجون ربي وافكك أسري ورهني فإني بذنوبي مكبل في سجوني ربي إني عبد كثير المعاصي فالمعاصي حائي وبائي وسيني ربني رب رقيني رمشاني zakkilin no na xam la fa in wasini xallini rabbi xallini bil masaaya مثل شين من قبله من وشيني لستجيب دعوتي بهما فغدني وبما فاق ربي كل ظنوني هب لي الكشف دعوه من وفاعي وامح عني ما كان مثل جنوني هب لي اليوم يا إلهي رزقا صف لي كالكلي بغير ريوني واعف عني وعني يا مل حقوقا للبرايا والتقدي عني ديوني